yàllaa nu dàkkul tiis ak i lor jëkk tey te ku yàlla dàkkul lor asal gistul lu bon ak cant daalanu war gu ànd ak aw ndigal ak tuubakuk sellal te takkoo jëf jugan ku ñu faggulum mucc ak njariñ day sante xol ak làmmiñam teg cay cëram gii cant gën aajuutuma am lëf lu dul kàttan gu may sante ka yàlla lii laa bëgg man te amul lu may sàkkooti it ndare ay ngërëm ak yàgg duniyaa ndaxte saa jëf yi sa kan sama xol bi soppul tey lu dul ak jëm kanam ak am la mboolem xejj yàlla ya am ci kun yow ban ba may noote njariñ yuy lor niwul ak mbir mu jub ak xol bu sedd ak gudd fan xam naa samay mbir ak sama jur jox la des wuutal ma say ngërëm ak sa bopp ak sa yéwén bàyyi naa samay bokkit ca mbaakul ñëw fi yow ngir bëgg sa cant ak sa jaajëf fa kiy galen tey nag sa gan laa sa murit laa maa ngi nii yaa dàq gan mboolem ku ne faa mën na gan fagul nu ngan goo xam ni moo gën gépp ngan tey ak ëllëg yaa gën sunuy waajur ci nun fagul nu ngan goo xam ni moo gën gépp ngan tey ak ëllëg yaa gën sunuy waajur ci nun kon ñaan rek la ñu mën a ñaan nanu xëcc ba yóbbu na ñoo ñee jëkk a ànd ak nu tàbbu ca ñoom ànd ak ñoom jëm fu jëm mu jëme nu fu ñu fu ñu fu fam